Monsieur Mergan, c'est fini, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je demande à tous les Sénégalais de ne croire à aucune vidéo postée sur YouTube ou sur Facebook. Je ne suis jamais réconciliée avec lui et je ne le serai jamais. Et devant vous, je vous jure solennellement qu'aujourd'hui, si je reçois la totalité de mes biens, je ne parlerai plus de ce monsieur-là. Parce que parler de lui, ça n'a fait que m'empirer, ça n'a fait que me stresser. Parce qu'aujourd'hui, avec l'imma de fiep, man mounoutou ma bokak mon ben lal, khol na ba khol, mais mounoutou no Parce que de mon titre, tu m'as fait peur. Je m'enferme chez moi. Imaginez-vous, à 30 ans, je suis enfermée chez moi pendant un mois. Je ne vois pas ma mère, je ne vois pas mon fils. Mon fils, c'était sa première année aujourd'hui. Je ne suis pas allée à l'école de mon fils aujourd'hui. Parce que j'ai peur de sortir de chez moi. Parce que si je sors de chez moi, on va me kidnapper. Les Sénégalais sont au courant de tous les magouilles. en direct, je vous montrer que toutes mes téléphones ont été mis sur écoute. J'appelle tout de suite mon ingénieur. ngeen xool sama téléphone yëpp lañu def sur écoute ngeen xool est-ce que dund naa est que man maa ngi dund man sàccu ma fenu ma jaayu ma drogue jaayu ma yàmba pourquoi on me sur écoute regardez je l'appelle il s'appelle Kader je prends le premier téléphone et ensemble on va le voir on m'a mis sur écoute dans tous mes téléphones xool leen en direct ils m'ont mis sur écoute di déglu samay conversation moi je suis pas un délinquant moi regardez vous allez voir Kader donne-moi on y va ah. étoile étoile jazz euh 21 oh putain attends c'est dur d'écrire euh, étoile dièse 21. étoile dièse on remet l'autre code. Ça me fait transfert d'appel. Oui, oui, c'est le même truc là, la même procédure, la même procédure. On refait l'autre code. Là. Oui, vas-y, étoile dièse. 61 dièse. 61 dièse. appel. oui appel touche appel. appel non transféré reviens sur l'autre code. l'autre code qui fait l'étoile dièse. étoile dièse kii de baa dindiwu ko sax étoile dièse. Hmm? étoile dièse dièse. yes yes zero zero a gaaw waaw jazz yes yes zero zero deux je suis harcelé hein ah, transfert d'appel il me fait transfert pour tout droit réservé de base problème de connexion ou code waaw c'est bon ça veut dire ah. quoi ça prouve qu'il n'y a plus mais yow c'est quand est-ce la dernière fois qu'on a fait ça j'ai les captures d'écran quand c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça ensemble. mais j'ai les d'écran xam nga man maay nabu preuve damay capturer lépp man sama téléphone bi capture rek la may servir sénégalais laa bëgg ñu xam ñu xool man li may dund. ñu gis li may dund je te coupe tout de suite coupe coupe. yow da bëgg buzz pour sa télé bi ak sa kenn xamul duma la may buzz. <laughs> ba c'est payant. kenn du la xàmmee t'inquiète. coupeel sa téléphone rek coupeel. xoolal j'ai capturé toutes les preuves transféré naa ko sama avocat bu yàgg avant ñu koy dindi déggoo ma de. Ah. coupe coupe coupeel coupeel coupeel yow coupeel bokkoo ci waxtaan bi. attends j'ai transféré tout man déggoo leen ma de man je suis avenante tiit ba. léegi damay def damay jël samay précaution dans tous les côtés parce que damaa xam ñi ma ko sekkal ñan lañ mais mënuñ si man dara parce que internet bi mooy sama défense mi ngi nii saa c'est xool leen ku ma ko yónnee Mame Diarra Fam laa ko yónnee ngeen gis ko nii gis ngeen numéro bii lañ ma defoon transfert d'appel si joignable mi ngi nii kan laa ko yónnee Mame Diarra Fam gis nga ko nii man Diarra Fam laa ko yónnee woon gis ngeen ko nii gis nga def sama appel def sama téléphone sur écoute euh, di déglu samay conversation di espionné lu ma wax mu xam ko lu may def mu xam ko waaw keroog ma ma bureau Bergane c'est pas Bergane qui a appelé la police moom moo woo police. dégg déggoo leen ma de j'ai toutes les preuves dans mon téléphone xam nga lu bëgg comme sëy bi tas na fi mu may ngeen ma sama baat na ngeen ma dimbali ngeen yàbbi ma yàbbi leen doomu jàmbur encore une fois yàbbi leen li ngeen ma def yëpp ça s'appelle vous m'avez torturé psychologiquement mais Dieu man dama nekk ku am gëm-gëm gëm-gëm moo tax ba tey dafa guma te du ma mës a dof sama yaay nag yëg na lépp sama kayitu kër moom bu ñëwul waa Jeune Afrique laay contacter gis ngeen man Jeune Afrique nii ci laay jaar tekki ba faaw ndax l'interview avec Jeune Afrique va se faire je maintiens ma position je vais dénoncer tout ce que tu m'as fait les violences conjugales la tudd Ça, c'est de la violence psychologique. Et les femmes qui sont en train de rire de la situation, Naboni, Naboni, vous ne comprenez pas. Li, Parce que Digo, na door jabaram ba gaañ ko. Mais violence psychologique moo gën a métti loo gis. te gis nga lii mënoon na la sànq. su ma su ma su ma su ma su ma su ma defoon su ma su ma su ma mm, tuuti rek sama àdduna la ñuy yàq. sàgganoon tuuti si j'étais un peu un peu un peu négligente. tey maa ngi hôpital psychiatrique ñu may piqué te dara daluma mais man dama nekk koo xam ne yàllaa ne ci man j'ai un bon cœur Dieu seul sait combien de gens j'ai dans ce pays tere sama yaay fii dama ne eh ku tere sa ndey sa say noonu du ñu gis say rongañ jooy naa nag parce que jigéen laa te je suis sensible c'est normal ma jooy parce que gisuma gisuma benn féministe ñi di coow yëpp j'ai vu aucun aucune féministe aucune autorité féminine de ce pays ne m'a assisté C'est pour ça que hier, j'ai parlé au président. Je lui ai en tant que président, tu me connais, je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Apportez-moi mon assistance, ni toi, ni ta femme, personne. te li ma dal nii mën a dal ku nekk mais yàlla mi dara tëwul bu la nag am ay fans samay fans tey ñoom ñoo ma jàppale parce que laaj yi may def moo tax du ma du ma xalaat lu bari mais man ak li ma dund ci yow maa la bëggoon bëggatuma la tey damaa xëy woote beneen déglu leen vocal damaa xëy woote sama kër beneen samay maam nee nañ ma génnal ci sëy bi kii du sa jëkkër déggoo leen ma de vocal yi laay teg nànk eh te pas mon mari dégage maa ngi tàllal man doo ma rey doo ma def ko lan la bul ko mënul mbaw lu yàq yow bàyyi ma ma dem nga ni maire bi maire dem boobu nekkoon si cinquième étage ba nëpp filmé ko danaa la weer ni maire dina dëmb bi dafa ñëw doon wër xam ku mu doon wër xale bi la doon wax xam naa man mi la dëmb bi man la doon wër xale baa ngi nii toog waaye eh, dëmb bu volé ñëw ba sama kër ma waaye man je protégé protégée et très bien protégée déglu leen sama vocalu maam sama maam bi nekk nekk ku xam nga xàmmee ngeen baatu ñag ñag la déggoo leen ma de man maay Kanka Moussa maa leen di faj yéen ñëpp un par mu ngeen leen ci man lëz teg samay vocal avec tous mes preuves six téléphones yëpp ay preuve la preuve bu ne ay preuve un preuve deux am nga mën ci man nga ne yow man nga yàq yow bu dee foo gisati jigéen daw man nag ma am maa nekk koo xam ne dama sensible dama bëgg damay nekk foofu naan noo na rafet na ñaaw mi ñaaw de mi ngi ñaaw de te di di gën a day gën a ñaaw ndax jeune Afrique laa jëm toog fi ne di ngàppeeku naan oh ma torturé oh my god dama ne eh, man nga yéene woon dof changement de situation je suis belle et jeune t'attendais le maa jox laa ji jeune belle intelligente et j'ai la vi devant moi et je connais tous les présidents dama ne yee doomu vice président bi euh, Souleymane laay mujj na banteel en temps dans les événements ndax il est mignon son père c'est un vice il a l'argent Souleymane ay kaa ngi nobante direct ma téye projet si daale woon nobante ak doomu vice président bi tout tire la dàq si projet bi récupérer partenaires yi ñoom Bamba ak ñoom ñu amaar teg ko fii nga koy gis sa xol doo ci mën dara. hey la guerre commence man nga yàq nga ni yow doo sama xam ko moo tax nga bëgg jël samay moto regarde tout ce qu'il m'a fait il a pris mes motos qui rien à voir dans la situation il a pris mes il a pris ma voiture il a déclaré aux yeux du dama dof et puis moi juge yi naan leen. bu leen ko tëj de bu leen ko tëj de leen ko psychiatrique man mii bu ma demee hôpital psychiatrique le médecin man maa koy faj quelqu'un qui passe sa vie à lire moi je passe ma vie à lire le mentor en or je suis un mentor en or man je passe mon temps à lire je ne que des livres de science sama liir yaa ngi nii dama leen wan samay bouquin man jàng moo ma dofloo dama jàng bay bëgg a dee euh, jox ma sama livre yi nekk sama néeg yëpp man damay lire ay livres science politique ay science man damay lire ba sama neurones yi taxaw nga ne yow man ngay def loo moi je te dis j'ai la psychologie et les Sénégalais ne savent pas que je suis en cours de psychologie je suis en deuxième année de psychologie je fais des cours de ligne en ligne et j'ai les preuves de mes cours déggoo ma de eh psychologue maa ngi nii man psychologue la psychiatre laa jàng nga bëgg ma yàpp psychiatre tu es qui toi qui es-tu Gustave <coughs> Gustave tàllalal ah, l'amour est fini néew naa leen man sama mbëggee sincère sama gémmiñ gi la yam rends-moi mes biens ou je torturer tous les jours sur Facebook sans t'insulter bien sûr parce que je suis une grande dame voyons la totalité de mes biens arrête d'envoyer des marabouts là ba on a pris des photos je suis fatiguée des preuves je veux plus de preuves laisse-moi Maroon Seye sëyituma c'est la première fois sénégalais yi ne ma na bu dagage su ma fii su ma si su ma génnu ci sëy bi damay dof sëy boo xam ne kër gi ñëpp ay criminel la dañuy rayante ñëpp tout le monde tue tout le man nag maay seen fetel man maay seen bazooka gis nga boo leen ma bàyyiwul dama leen ni cat yónni ngeen maire bi <laughs> maire dëmb bi mu naaw naaw ba kale Podor ba kale Padoa pour la maire bi ak si wu sama kër eh c'est la première fois de l'histoire ma gis senegal ay maire dëmb yu naaw. cas bi dafa danse y a trop de cas dans le cas musuma jiboo ak moom et lui et moi c'est fini il me rend mes biens et je me tais tu me rends pas mes biens je ne me tais pas yaa ma tere noppalu fi mu livre yaa ngi si livre yaa yaa ma tere noppalu je reçois mes biens je vais en vacances parce que j'ai besoin de repos dama eh Gustave mais bien tant que j'ai pas mes biens duma noppi man comme rajo je suis ton muezzin tous les matins je vais te je vais te je vais te faire des lives mes biens écouteur bi jëlal ma may la ma sarax la ko ndax amoo leen dara yéen jëlal écouteur bi mais delloo ma samay kër bu Sénégal danañ ñu gis xam ngeen jixaat samay kër maa moom maa ko liggéey boo ma ko joxul moor mooy am ay moor dom mis avocats, ils sont avenants. Tu vas recevoir aujourd'hui une lettre du CIE notifiant que tu dois ramener à la petite fille de 29 ans tous ses biens. Famille huissier, nous avons une lettre de remboursement de tous les crédits et dettes et de tous les biens rendus. On passe par la loi. Comme il y a une loi, une privilège. Il y a un ingénieur. Il y a Einstein qui est là. Regarde mes livres, mes livres. Là, d'aller à l'essentiel. yow y a des livres là. Il y a na bu Aïcha ngay dugg yàq ma lii lan la Léo Babata gis ngeen ko nii l'art d'aller à l'essentiel pour voir d'une vie simplifiée boy bi maa la gën a bandi ex bébé eh chérie négocier avec la méthode de Harvard lii lan la communiquer votre voie de succès eh chérie regarde mes livres damay lire ba dof lii lan la Oprah Winfrey Que vous est-il arrivé maa ngi nii comprendre les traumatismes du passé pour reconstruire nos vies bii nag laa war a liiraat <coughs> Oprah Winfrey <coughs> c'est un livre d'Oprah Winfrey gis ngeen ko nii vous avez vu et ça les déserts du cerveau émotionnel gis ngeen ko nii l'exil des sciences sociales et ça je l'ai acheté récemment doucement René les jours. Ça, c'est pour me reconstruire parce que j'ai besoin de, de, de, sensibiliser. Maintenant, l'information a donné moins de 1. Jubóowuma ak moom et man mii sama bopp d'accord naa ci divorce bi je suis d'accord du divorce et ma maire et d'accord pour le divorce toute ma famille est d'accord pour le divorce gàcce gi amul gàcce fii amul benn gàcce gàcce gi kay yaa ko féete yow mi yor bien xale bi te doo ko delloo dama ni. ngàcce ngaalaam toj nga fi tonton toj nga fi say morom ñëw nañ jël ndaw yow nga ñëw ramasse lépp bien joué bravo bravo la vidéo nag sur que sur Facebook comme quoi que dañoo juboo je montre la vidéo musuma juboo ak moom j'ai vu on m'a envoyé les vidéos je ne suis pas réconciliée avec lui et je veux plus même de lui je vais décider j'ai décidé de parler de lui parce que ça a plus de sens pour moi moi quand je tourne la page je tourne la page xanaa xamu leen ma man maay Nabou Next maintenant pour être clair et bref euh, mes documents je les veux ou sinon je serai demain en live encore pour te dire que je n'ai pas reçu mes documents rends-moi mes biens une dernière fois sénégalais yi wax leen delloo ma samay bien delloo leen ma samay bien sonn naa ci wax bi samay kayitu kër samay caabi kër jox ko sama nijaay nga xam ne commissariat jëppal la nekkoon Malick Sow loolu lan moo ko gën a yomb lu tax bëggoo jàmm tu as donné rendez-vous à mon oncle hier lundi et je lui dis qu'il faut une procuration je lui ai la procuration légalisée déjà ba jotee procuration bi ngir yàlla delloo ma samay bien di da bëgg jàmm parce que moi que ci voilà là je suis préparée la guerre c'est la guerre